on ay milliards mënul tax mais de toute façon man mi Shake li ma leen wax li ma leen di wax moy am gis nga président Sonko bu yaakaaree né day jël Sénégal day jël ay élect day jël président Sénégal ci élection day nax bopam président Sonko ci niñ ko def ni niñ ko def ni téye ko kër génn deful dara mu yaakaar Macky day dindi barrière ñu négocier ne ko kaay bokk nga moom mu dem bokk yaakaar lay gagné élection président Sonko day président Sonko déjà pour élection am problème la benn chance la am président Sonko chance bi mu am mooy mu jàkkaarloog Macky Sall mu wan ko ne yow bokkatoo dootoo président wax élection yi ni mu war a demee te loolu nan la ko Sonko mën a def il faut sonkoo Sonko génn këram laaj Macky Sall lan moo tax nga rey trente personnes lan moo tax nga rey trente personnes lan moo tax trois cent suñu trois cent booy génn dem dee ci géej gi Ousmane lu tax nga rey ko lan moo tax almaami Sagna nga rey ko ci kaso bi lu tax nga jàpp Cheikh Bara Ndiaye

loolu moy seen c'est-à-dire yéen bu nu leen man wa Pastef xawma ñan ñoo fa c'est vrai que maître Fall limu def ba ki dem c'est bien conférence de presse di wax ci Ousmane Dia biñu ñu bal ci tank ci cuisse jàppoon ko le 26 dóor ko bal ci cuisse ci cuisse jàpp ko le 26 juin 6 jours après 6 jours après Ousmane Dia dee ci prison bi té yaay Ousmane Dia mi ngi len doon wax ne ki dafa fébal

nan la Sénégal nan lay libéré woo bu dee ay buqkat ay buqkatu journaliste la am buñ jigee di jaay guerrier yow nan ngay amee interview ah nan ngay amee interview boo xam ne nerf bi nerf bi moo génn mu ne la ministre bii ak ministre bii ñoo ma recruter gànnaay yi fii la jógee lii ak lii yow Pape Alé nga ne doo génne interview boobu parce que dañ la menacer dañ la menacer motax nga ragal ngay do ko génne parce que ragal rek la meuna a doon ndax loo dul génne par décence nga ne ko génne par décence la moy décence yo xalé yaa ngi dee nga am preuve ko xamné boko défé Macky Sall dootul sax tal wax wax Amadou Ba nga am nga am ben ben euh, vidéo bo xamné boko ne boo dula japp papa Alenya yo xamoo sa Pape Alé doo Cheikh Bara Ndiaye Pape Alé doo Cheikh Bara Ndiaye Pape Alé Niang doo nit dof Pape Alé doo doo Jim yow yaay Sonko numéro 2 yow rek lañ fi jàpp adduna bi yëpp di ko wax ak Sonko Cheikh Bara Ndiaye ku siw la ku siw la ëppoo ko ay vues de mais gis nga jàpp nañ ko mais Cheikh Bara Sénégal la siw ak diaspora da ngaa siw Sénégal siw diaspora mais sur le plan international dañ laa xam Pape Alé Niang Macky Sall ñemewu la jàpp ñemewu la rey kon lan ngay nekk fii di wax naan dañ may menacé buñ ma buñ ma agressé ci la ci wax naa gars yi ñu génne vidéo yi mais loolu yëpp Sénégal la li nga wax yëpp Sénégal la buñ la agressé daal ci la vidéo yi doog a génn mais yow da nga ne par décence doo ko génne

parce que tu es un journaliste international bañ la tëjee bale passé Amna na sax xaw ma ONU ban organisation internationale ku génn ku def tweet ci Pape Alé mais ragala ragala ragala ragala ragala. Bolen ma laalee Bolen ma agressé Bolen ma agressé xeex bi dafa am ñoo xam ne moomatuñu seen bopp Sénégal mom. moom Pape Alé Niang moomatoo sa Senegal mom de yow ya dugal sa bop fo xamne man Mister Shake xeyna li nga def munu ma def waye nit bo demé ba bok ci histoire da ngay nangu li la yàlla teg te bo ragalee ci ngay dé bo ragalé kula japp jàpp lañ lay japp waaw yor nga document yow kay leen nga mënon wax document bi léruma ndax deug la wala du kon munu moko ko loolu moom journaliste bu ne loolu la war a wax mais yor naa ay preuve yoo xam ne ko génnee rey dina jeex rey dina jeex da koy génne nga koy génne léegi ñu xam Macky Sall li def Macky Sall warutul jiite benn fan Sénégal man loolu lan moo Sénégal dafa mel man rek maa xam loolu Ousmane Sonko tam xam na ko daf ko bind rek bàyyi lan moo man man rek rek rek maa xam Macky waratul jité ben fan makki mo la gëna xam lolo tax mu jàpp Cheikh Bara Cheikh Bara dafa ne démission makki mu jàpp Cheikh Bara dafa doon continuer di wax démission démission démission Sané mi ngeen gis momit lolo la wax démission makki makki Sané yana maar motax gis nga convoqué wat convoqué wat nañ ko le le 18 te buñu sétané dañ koy tejj ndax Birame soleil ngi ni dañuy jàpp di xool di jàpp di xool retour de parquet ah gars yi defuñu dara xeexuñu ah kon nañ ko yóbbu saane bu ñu sàgganee dinañ koy tëj vidéo bi Pape ale génne ko bu dee nervi bi nervi bu li muy wax dëgg la te man ni nga waxee ni nga waxe nervi boobu dafa dafa dafa jëfur nee na ñii ñoo ñu yónni nii ñoo ñu recruter bu dee ay mbër la nii lañ ñu recruter gànnaay yi ñu ngi fii ngi fële ñu ngi fii loolu di ko am ñu jàpp Sonko wër këram kii ni ngi ñu jàpp ko ci affaire yu ñàkk fayda Biram Biram Souleye yeah I'm live man how y'all doing <laughs> say hi yeah yeah <laughs> yeah from Australia or something England oh England oh yeah yeah I love England yeah England yeah the best man all right I anglais lañ nan ngeen nan loolu nan la man nekkee ah ci nee na ma sa ginnaaw dama am sama ginnaaw <laughs> non xool leen rek bi moom bi moom xale yi xale yu jinne yu waaw boo leen bëggee nii la de yéen a commencé waat bëri de boo leen bëggee ma wan leen ci xale yi ah xale bi rafet na de anglaise bi moom rafet na de macha allah anglaise bu am ginnaaw tubaab bu am ginnaaw c'est rare ah, ah xale bi moom ah ne fa xale bi ginnaawam bi ah ah kii nag kooku kan la. nañ continuer ah kii de moom c'est une mariée moom waaw waaw wang na de <laughs> kan ma bindee waaye yow nees jigéen nga wala góor <laughs> nees nee ne wang nga moom <laughs> tubaab bu am ginnaaw yow nees góor nga wala jigéen yow Nefertiti xaw ma xaw ma lan ngeen nees nees turu nees turu góor la wala turu góor ah waaw léegi neer bi nervi bi nan ngay amee document bu am importance boobu

Mais Dame li li chance c'est Dame affaire bi mais si léegi ni ni ni suivre je sais ko suivre téléphone son téléphone est sous écoute Vous va signer chaque semaine comme vendredi la chaque mois day dem di signer Il va Vous rek signer comprendre parce que live yi chaque jour. di am ay trente mille vies quarante mille vies di leen attaqué yow xam nga ne ta vie est en danger moo tax ñu naan la gàcce ngaalaama te nit rek nga mën a doon comprendre nañ parce que tamit nga toog ñu lay woo téléphone naan dañ lay agressé ñi leen naroon agressé ñoo la woo ne la ah grand grand gars yi dañ dañuy fayoon pour ñu agressé la waaye ñun duñ ko def léegi ñoom ñu jël ñeneen pour ñu agressé papa loolu ñëpp xam nañ ne c'est dur métti na mais nag bu ragal Pape Alé bu ragal parce que yow yaay Sonko numéro de yow moom yow rek lañ fi jàpp mu def buzz yow Sonko rek lañ fi jàpp mu def buzz Karim Xrum Xax dañ ko jàpp 2 jours 3 jours gars yi fàtte Cheikh Omar Diagne fàtte man Cheikh man Cheikh Baara moo ma gën a bett Cheikh Baara moom ma gën a bett man yaakaaroon naa ne Cheikh Baara bu ko jàppee ay taalibeem rek dina yëngal réew ndax dafa bëri nit ñëpp ko sopp waaye Cheikh Baara jàpp nañ ko gars yi fàtte aale rek rek rek lañ fi jàpp liñ ko japp mois bi yëpp Jeune Afrique BBC ñëpp di wax ci mom des fonctionnaires internationaux ay tubaab de ay directeur agence ñu ne di wax Macky dal di ko bàyyi kooku kooku nga yaakaar ne Macky Sall ñem na ko ñeme na ko rey fa la jaar Macky ñemewul roy pap ale ñemewul tëj pap ale Pape Alé du n'importe qui de journaliste kenn du ko tëj journaliste kenn du ko tëj dafa am protection mais Pape xamul valeur xamul boppam bon document boobu boo ko yoree da koy génne bu la leeral ne c'est authentique génne ko lan lañ lay def mais noonu lañ mën a def pour Macky génne loxoom ci élection yi dinañ sóob menacé la woo la fii convoqué ne da lay jàpp mais buñ la jàpp dañuy téegal sa ndey génn la génne la parce que loolu nga yor bomb la. bomb la boo ko génnee dinañ la jàpp moom mais dañ lay bàyyi xamul tax ñu lay bàyyi parce que ministre yooyu ñu tudd ak ni ñu ko defee day ñaaw ba nga xam ne sénégalais yi dañuy révolté wu nag ñi doomu xaraam yi nag ñii nag il faut ñu téegal sa ndey génn leen réew mi mais document bi mel noonu boo ko amee da ko war a publier wala yow boo ko ñemewuloon publier da nga ko waroon jël nga jox ko ndànk tunkara wala kay foofu man sax boo ma ko joxoon ma publier ko billaahi wallaahi taalaa comme ça yow bu la neexee nga bañ ci feeñ man bu rey sama famille ñu rey sama famille parce que xeex bi foofu la toll il faut que am sacrifice sinon Macky Sall dina au Sénégal ñëpp lay rey ñëpp lay tëj doomu xaram on doit les arrêter te mënuñu dépendre ci benn personne rek Sonko Sonko Sonko parce que Sonko kenn xamul agenda parce que il est assis sur des informations dont nous ne disposons pas te Sonko kenn du ko critiquer lu ko neex def bu ko neexee tok foofu ba décembre kan moy critiquer Sonko même buñu d'accord d'accordul ci li def Sonko bu d'accord même buñu ñu d'accordul ci li ñuy def duñ ko critiquer parce qu'on on sait qu'il est assis sur des informations top secrètes des informations secrètes xam nga des informations extrêmement confidentielles Sonko limu xam mo beuri motax heure bu ko neex lay génn bu ko neex sax du ñew du ñew ci investiture bi alors que ñun dañ ne dafa wara ñew on comprend le président Sonko loolooy suñu problème ben guerrier rek lañu am waye xam nga ni Pape Alé limu mu yor bu ko genné won ah hein? te papa Alé il est appelé à à jouer un rôle prépondérant dans dans l'avenir du Sénégal fi nga mën duggé ci histoire. lii moo tax benn Sonko rek la ñuy am boo bëggee mel ni Sonko boo amee information bu mel nii da koy génnee pour wane ne man vrai patriote laa sama bakken xam xaj na ci mais dama koy génnee man maa man maa waddal Macky Sall comme rapport bi li nga def ci rapport bi parce que rapport bi dafa yëngal àdduna mais lii nga yor nii moo gën a garaaw rapport cent fois parce que rapport bi ay allégation la